fii ci esplanade du grand théâtre Wally amoon fa concert am njombe fa am ñaari feccakatam di tëlli tëlli tëlli tëlli comme ni ko sa naataango sanjoogu di di wax di di ko café nga xam ne ba jamono de baax bu ñëwee ba war a conclure ñu ngay conclure ak ndaat tëll waaye ndaat foonante gémmiñ gémmiñ góor góor kooku kenn du ko seetaan mm-hmm. du ñu ay góor jigéen mais yëfu góor jigéen la def rawatina ñiy tukki xam nañ ko boo demee dans certains pays occidentaux particulièrement Allemagne ak Hollande boo ñëwee ci station métro yi ak arrêt bus yi les homosexuels bi ñu nuyoontee loxo tuñ tuñ la ñu nuyontee kon mhm. loolu buñ ko bàyyi woon mu jàll fii ëllëg rek suñu doom yi nekk ci cour récréation école yi di fóonante gémmiñ ak gémmiñ buntu ngóor jigéen dal di dugg moo tax Jamra a frappé ñu naan waaw waali nangam ma ne on frappe procureur jox ñu dëgg ñu jàpp ñaari feccakatu Wally Seck yi tëj leen un mois ferme fekk li jiitu loolu atuwaat nañu ci Wally dafa jóg indi fi benn sac à main di mode bu bees sac à main de femme portée par un homme mu daal di indi problème ci dëkk bi ndax xam nga far dafa metti ñi nga xam ne dañ koo fan commencé déjà di ko toppandoo di jël ay saagu jigéen di ko langal seen mbagg di dox maa ngi dëgg sa amet ay dara ci benn émission tës muy nettali benn fan su Wally Seck bu ñu jàpp fii ci weti dalal jàmm à l'époque mhm. muy langal saak romba benn groupe mécanicien rek ñu ne jàppaleen dóor leen góor jigéen la dañ ko dóora dóor ba dañ ko dugal dalal jàmm di ko faj mhm. ci laa woo Wally Seck jotuma ko ma woo Ndey di ku baax soxna Kiné Diouf jaaga ma ne ko sa doom ji saagam bii mu ngi indi fitna ci dëkk bi ñi ko fan ñu ngay roy di ko toppandoo waaye lu ne xaj na ci mm-hmm. mu ne ma dafa tukki waaw tukki bi bëggee yàgg nag Jamra def déclaration naqarlu ko nee na retirer sa saak la parce que boo nekkee porteur de voix loo def mais xale yi dañ lay roy mm-hmm. responsabilité la yàlla dogal na ba mu jógee tukki mu dem grand théâtre ñun taxuñu mu dem grand théâtre benn spectacle bu mu fa programmé woon de longue date waaye mu def geste boo xam ne rafet na bi kii bi ubbee spectacle bi dafa jël saagam di indi coow li télévision yëpp jël ko gros plan mu jël ciseau daggat ko en mille morceaux coowu saag bi jeex mhm. waaye ñu teg ci ñetti at coow toppati mu di t-shirtu góor jigéen bi nee na da doon màggal victoire u Sénégal contre euh, Rwanda xaw ma Burundi fii ci avenue. Euh, place de l'Obélisque mhm. mais booy màggal victoire u Lions yi lu la tere sol maillot Lion. Mhm. sooy màggal victoire u Lions yi lu la tere sol drapeau Sénégal ma daal di woo Wally Seck ma ne ko lii nga sol góor jigéen àdduna wërngal këpp mooy seen symbole de reconnaissance. ni France amee drapeau bleu blanc rouge Sénégal am drapeau vert étoile di góor jigéen drapeau arc en mooy seen mandat waaye waat na waata waat ci ay sëriñam ak tout ça ndax dëgg la du dëgg suma yoon new ci nee na daal xamu ko woon bref jéggalu na loolu jeex mm-hmm. waaye mu ngi ni coow coow coow coow jibati mm-hmm. yàlla dafa dogal nag euh, Jamra bañ ko sosee ci mois de février 1983 saa wu ñu waree xeex ci ku jóg bëgg yàq jikko yi ak koo mën a doon wala jóg bëgg a tilimal malaanu lislaam lu ñu la mere mere mere dañuy jëfe dañuy jiital li suñu borom santaane dafa ne sa moroomu jullit bu tarxiisee mbaa mu def naka su dul noonu bul nee bërit rek dem sa penc ma di ko xalab mhm. ñu ne ko lu ñu war a def mu ne da ngeen di jëfe euh, Euh, wa amruhum shura baynahum maanaam yéen jaam yi da leen di farataal shura shura moom la tubaab di wax concertation mhm. wolof di ko wax diisoo mhm. kon suñu combat yëpp depuis 1985 di procès bi ñu amoon contre les francs jiital nañu shura mhm. waaye bu ñu defee shura jurul njariñ mu da jàmmarloo dal di dikk looloo xew suñu diggante ak Ahmed Cissé bi xam ne yi mu def yéen ñëpp dégg ngeen ko nee na mu ngay sargal góor jigéenu senegal ak yu Gàmbi nee na man Ahmed Cissé damay njaaloo te duma ko nëbb damay yéeg dañ ma jégal ci kaddu gi waaye wax da wax mu leer mm-hmm. damay yéeg kaw xale yi di namp waaye dama am choix mm-hmm. ndax mooy yàlla bu rëyee noonu bu ma xamee duma yi ma ciy fekk damay am choix ndax bu dima yi duma yi dee dal sama kaw mu jar ko mm-hmm. eh, moo ko def waaye li wax ji ñaaw ñaaw ñaaw terewul jiital nañu suuraa woo naa ko je le dis surtout à à l'attention des ñi ñemee bàkkaar naan lu tax Jamra waxul ak moom jékki rek porté ko plainte ba ñu tëj ko kaso demeewul noonu jokkoo naa ak moom le 19 octobre 45 minutes mu ne ma ne ko jarul ma naan la yaa wax lii yaa def le li nga wax xam nga ko li naqari ni ñi xam nga ko coow li bari na. Mm-hmm. Jamra li mu lay ñaan mooy jaayal sa njaay parce que moom dafa am ay produits aphrodisiaques yu muy jaay. Mm-hmm. waaye ngir yàlla bàyyil suñu diine alors ci gàttal au bout de quarante cinq minutes ak làmmiñam bu neex boobu waaw yéen Jamra wax dëgg yàlla man am na fu ma leen tegoon yéen man Ahmed Cissé waaye maa ngi doog a gëm ni ndekete yooyu yéen Jamra teg ngeen ma fu gën a kawe foofu. Mhm. kon yow li nga ma laaj li nga ma ñaan yow maam Makhtar Gueye man Cheikh Ahmed Cissé nangul naa la ko. bu mhm. ko defee man ma jël sama téléphone woo kilifa yi meroon yëpp te bokk ci plant bi sëñ Basirou Mbacke Cheikh Astou Fall jarbaatu sëñ Muntaxa mhm. ak. Euh, Euh, no waxtaankat euh, nu mu tuddati bu mag. Mhm. ba nekk euh, grande mosquée bu bu Touba. Mhm. di Serigne Sambay. Mhm. woo yeneen muxadam yi nekk Touba Ndiassane Thiénaba Niassène ñoom in imam Aliou Dia imam ratib bu Ndar bu Tëngéej imam dégg nga Mouhamadou Lamine Diagne imam ratib bu Wakam mat nañ 18 moo woo leen neen ah saa day lii la wax kon nag baissez les armes. Mm-hmm. ñu ne ah mbaa wóolu nga ko ma ne ah waat na de nee na bàyyi na waaye ndeke daf ñu doon nelawloo ba mu yeetalee ba ñëpp nelaw rek mu jékki rek génn arme de destruction massive bi ne jàkk yi war nañ di fa séddale capote anglaise du préservatif maanaam jumtuwaayu jaaloo kati ak jàkk nekk béréb boo xam ne suñu borom daf ko fonk yëkkati ko ba di ko tagg ci suratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la mhm. parce que rolu jàkk mooy ubbi dënnu jaam yi dindi yu bon yi euh, kiñaan soxor gaaw a mer dégg nga euh, remplacer ko ay valeur yaatu dënn iman ak tawxiid bu dëgër loolu tax jàkk jóg pour mhm. tabaxaat nit ku bees mhm. yow nga ne jàkk jooju li gën a yées ci bàkkaar yi di njaaloo nañ fay distribuer jumtuwaay bi loolu mooy dañuy encourager nit ci njaaloo mooy njaaloo leen rek waaye li ci am solo nangeen ngeen jël préservatif gars yi ne ma loolu day la def léegi léegi yow Jamra euh, yaa tamoon di wax ak moom di def suur ak moom xanaa da ngay delluwaat ma ne déedéet attaqué na jàkk yi Jamra va l'attaquer noonu la demee mais bu leen ne waxuñu ak moom wax nañoo moom moo xëtt sartu suura alors kon dama romb noonu rek wax la exemple yooyu yëpp pour wala ne. Mhm. combat yëpp dañuy jiital li suñu borom wax wa amruhum shura baynahum ndaw soo si rappeuse boobu ñu di ko wax Audrey Diatta. il mhm. y a deux def na fi lu ñaaw sol fi o boo xam ne mara day taal yi awra yëpp ngi ci biti. Mhm. ndax jigéen rawatina sa dënn ba ci jumbux bi loolu yëpp awra la. waaye moom itam am na ay mbokkam ak benn ci manager am yi wala bokk. encadrement mhm. technique yu ma wax def suura ak man daal di jot li ñu kàddu gi ne ndaw si dootu ko def tuub na mhm. on tourne la page mais Ahmed Cissé dafa ni ñaanu ñaanuma njekk ma kenn mu ñaanal ma njekk jéggaluwuma bu yeboo plainte Jamra yi nekk mille voilà loolu moo waral procureur tëj ko kaso parce que il a défié tout le monde voilà léegi nag entre parenthèse woo na ma woo bi Euh, mercredi le set di kooku ma jël kooku la mu ne man la Ahmed Cissé ma ne ko fi nga ne bari na brûlé mu ne ma heure de visite la quoi ma ne ko ban Ahmed Cissé mu ne ma Ahmed Cissé di nga yóbbu kaso ma ne ko man kay yóbbu ma la kaso man dama jàmbat ci procureur. Mhm. procureur jàpp la tëj la. Mhm. voilà mu ne nag maa ngi maa ngi lay gërëm. Mhm. ma ne ko gërëm. mu ne ma dama la seetaan démb ci émission chronique judiciaire bi Papa Ndiaye bu wal fajiri di animé émission bi ñu di ko wax balance ñu doon ci discuter sama dossier waaye la nga expliqué vraiment yaayi nga ma ndax man dama joon tëñëx tëñëx rek defee ne j'ai surtout le monde mhm. waaye nattu bi ma yàlla teg te jaarale ko sa loxo ci kaw plainte bi nga plainte ba ñu indi ma kaso nattu bi ubbi na sama bët mhm. kon nag damay yëkkati kàddu di la jéggulu ma ne ko d'accord ma du man nga tooñ umma islamique bi nga tooñ mhm. da nga war a jéggalu ilimaan yi naayir yi ulamaawu tafsir yi hafiz quraan yi responsable jàkka yeeg jumaa yi lu ñaaw li nga wax jëmale ko ci jumaa yi mu ne ma naka laa koy defee ndax fii ma nekk nii mënulu ma sama bopp dara ma ne ko nga yoon ni nga ma woowee nii nga woo sa ay mbokk mhm. bref def na ko parenthèse bu ma ubbi woon la rek mhm. avant ñuy wax wax yi waali def na ko Cheikh Tidiane Cissé di baayam ànd ci ak euh, frère am wala cousin am ñu di wax sàmba Cissé ak Bassirou Cissé ak ñeneen. Mhm. jàkkaar la ñoo presse daal di jéggal jébbal seen njéggal. Mhm. waaw dama leen ne nag comme que suñu borom ku ko sax mu jéggal la. Mhm. kon nag boo leen di jéggalu askan wi bu leen jéggalu Jamra ñun defu leen ñu dara. na ngeen jéggalu jullit yi. waaye boo leen koy def nag na ngeen fexe ba dëppale ko ak shariatul muhammadiya ndax suñu borom dafa ne tuub sartu tuub ñett la. nanga nga nangu ne yaa tooñ mhm. ñaareel ba nanga nga biral kàddu mhm. biral sa njëggal ñetteel ba nga jël engagement moral ne dootoo ci dellu si mhm. yàlla ne na loolu boo ko matalee ci sama yërmande mën naa jël sax sa euh, tooxi doone bi soppi ko def ko yiw voilà donc ay mbokkam def nañ ko léegi nag la décision ne pas entre les mains de Jamra c'est entre les mains des autorités kon Soura Jamra mosu see jóg kon nag bi coow King Fat Palace bi amee. Mhm. ñu def suura woo naa Wally Seck jotuma ko ma woo yaayam parce que maag yaayam euh, jokkoo woon nañu en 2016. Mhm. bi fi Wally Seck indee dégg nga. saag mhm. di soxna su baax. soxna Kiné Diouf Diaga. ma di ko yërëm fu ma ndax njaboot njaboot dafa metti da ami angoisse ami insomnie surtout. su dee sa doom day yëngatu dans l'espace public mhm. waxtaan nañu ci suuraa bi Jamra waxtaan na ak ñeneen jege ñaale Wally Seck mënuguma wax fii seen tur mhm. ci suuraa bi Jamra waxtaan na avec les organisateurs mhm. Tange Tandian moo organisé affaire bi mook Mati Jaxate ñoom ñëpp ñuy ay créateurs d'événements bi Jamra jeexale gëstoom vers quatre heures du matin ci la ñu am nag résultat wu suñu enquête mu di Wally Seck du moom moo organisé affaire bi mhm. prestataire la ci waaw nit ki nag bu fekkee ay waykatam ay fecckatam dañ def tooxi doon a grand théâtre nga plainte leen dal seen kaw ñu fëgg leen un mois de prison ferme bu dee Wally Seck daf fi indi saag yooyu di saagu góor jigéen ñu xeex ba mu bàyyi ko mu indi fi t-shirt bi ñu xeex ba mu bàyyi ko alors bu amee coow lu ko topp na nga ak li sariya wax mm-hmm. da ngay seedeel nit ki li am kon suñu gëstu li mu ñu wan mooy Tandian ak Mati Jaxate ñoo ko organisé Wally lan la ci kon prestataire la ci yi mm-hmm. lan la ci prestataire la ci ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. ñoo xam ne dañu ñëw def seen prestation ñu fay leen brésilien yi def yu ñaaw yooyu te indi coow ci dëkk bi lan lañu prestataire lañ ci. voilà kon nag loolu dafa mat a leeral. dafa a leeral waaye préparé woon nañu suñu plainte contre Wally. Mhm. waaye comme que euh, suñu diine dafa ne euh, euh, jullit bi. waama shahib naa ilaa bi ma alib naa ne témoignez que de ce dont vous êtes sûr de science certaine ba ñu ko gëstoo. Mhm. ñu gis ne Wally prestataire la ci. prestataire kon ñun la léegi ak contre les organisateurs. alors organisateurs yi léegi lañ fi yónnee nit. muy benn lettre boo xam ne mu ngi nii Tange Tandian moo ñu ko yónni moom ci ñi société Mat Event ci la bokk ñoom ñoo organisé soire bii am coow lettre bi lan la objet demande d'excuse ba ma ko liiree ma ne ko Tange d'accordu ma mu ne ma ci lan ma ne ko du man nga war a présenter ay excuse man duma ci dara man simple ndongo la kilifa yi mer laa dajale seen mer ni ma ko defee woon ci Ahmed Cissé déposé plainte les mêmes kilifa ñoo mer ba sas ma ma enquête lii enquête naa ko nag du waali moo organisé événement bi yow la yàgg mati kon boo leen di jégalu bu leen ma jégalu boo indi di bu leen jégalu Jamra jéggalu leen mbooleem umma islamique bi ak population sénégalaise bi nga xam ni choqué ngeen leen dans leur sensibilité mm-hmm. population sénégalaise bi nga xam ne Euh, euh, violé ngeen euh, ce qu'ils ont de plus cher mu di seen passe-passe mhm. alors ñooñu ñooñu nga war a jégalu léegi nag def na émission Seneweb tey la ñaata le voilà tey tey le 12 lundi 12 mhm. dina jàll lundi 12 à 20 heures mhm. ci Seneweb jégalu na waaye nee naa ko man moom j'ai pas besoin d'excuse dama relais rek la mhm. dama relais meru ni ñi léegi nag booy jégalu nga jégalu nit ñi mer il appartient maintenant à la communauté musulmane ak kilifa diine yi ak këru diine yi Touba Tivaouane Ndiassane ba Niassène Medina Baye Layène yi nga xam ne ñoo ma bind ne naa jóg ci lii il leur appartient maintenant d'apprécier sa mhm. demande d'excuse waaye du man maay naan nii wala naa waaw jot naa sa lettre jot naa léegi jéb eh, biral nga sa kàddu ne yaa ngi jégalu mm-hmm. wax nga ko ci média bu mag bu mel ni Seneweb eggee naa ko fii tamit léegi nag ñooñu bu ko déggee il leur appartient à eux d'apprécier mm-hmm. mais un petit Makhtar Gueye est trop petit pour ma joxe ci appréciation alors comme c'était le cas avec euh, Ahmed Cissé mm-hmm. boobu tamit man maa ci fës nii rek gën cee rëy làmmeñ gën cee sopp waaye plant bii ma def plainte Touba la Tiwaawan Njaasaan Thiénaba Ñaseen Medina Baye Laayeen plainte boobu moom lañ jox procureur mu daaneel Ahmed Cissé tëj ko kaso waaye du plainte Jamra Kot mhm. fii tax c'est la même chose mhm. tooñ nga euh, yónnee nga ñu njëggal mhm. léegi euh, yónnee nga ñu euh, demande de d'excuse alors ma ne léegi il appartient maintenant au aux intéressés d'apprécier voilà kon nag il faut que ce soit très clair léegi li ma bëgg leeral nag par rapport ak intellectuel tubaab yu ñuul yooyu yàpp Jamra boole seeg ñàkk fayda ak xeeb seen bopp jamono bii ñu attaqué cirque noir ba procureur jàpp booy yooyu di def pornographie tëj leen ginnaaw bi bi bi Jamra porté plainte ñoom ñu dem di ma éditorial tuddee ko euh, Jamra arrête ton cirque ma yëgal ces pantouflards là révolutionnaires de salon lii Jamra di xeex c'est pas propre au Sénégal xeex pour la préservation de no bonnes mœurs dëkk boo dem gis ko fa te yéen na ngeen ay intellectuel ngeen dangeen di liir di dugg ci site yeeg fu ne ana Netflix mu di la plateforme américaine bu bari doole te siiw ana mu Netflix fait l'objet présentement d'une procédure judiciaire pénale parce que ci plateforme dañ fa doon jàllale benn série bu tudd Mignonne mhm. et qui s'est révélé être benn série qui fait la promotion de la pédophilie père de famille yi jóg association consommateur yi jóg association parents d'élèves yi jóg kuréel yu bari bari comme comme li xew nii rek mhm. léegi ka jiite fronde bi comme li Jamra di def c'est le sénateur républicain du Texas Ted Cruz déposé na plante jox ko procureur ne film bi nañ ko fi jëlee xale yu am 16 ans 17 ans nga di la jouer seen scène yu bon di encourager la pédopornographie arrêté nañ ko foofu États-Unis la yéen mën ngeen bàkku ba ne yéen a gën a démocrate américain yi cette chaine chaîne Netflix avant coup d'envoi mondial bii mhm. bu Qatar am na six pays des Émirats yu def coalition bindal lettre à la direction générale de Netflix ñan ñoo signé lettre bi arabi Saoudite Koweït les Émirats arabes le Qatar Bahreïn ak Oman daa di ne Netflix yaa ngi gagné beaucoup d'argent ci couverture bi ngay def sur nos six pays y pas de problème ñu ngi lay souhaiter bonn chance waaye fan yi danga dugal dans ton bouquet benn série lesbienne maanaam góor jigéen yu jigéen yi ñu ñuy accouplé dëppoo la suñuy valeur kon rocci ko boo ko deful ñun six pays arabes yooyu am nañu des moyens juridiques et technique pour li ñu bëgg mu am mhm. léegi lan la nit si def dafa ñaan délai kon dëkk boo dem am na ñu taxaw ànd ak fayda di protéger seeni valeur di protéger la santé mentale et morale des enfants et damay citer par un dernier exemple qui, qui est plus proche parce que c'est la France mmh. France il deux mois le CSA Conseil supérieur de l'audiovisuel mmh. c'est l'équivalent du CNRA bu Sénégal mmh. bloqué na juróom benn site pornographique en France parce que dafay parti atteinte à la santé mentale et morale des enfants site yooyu lu ñu def dañu daw saisir tribunal di sàkku ci tribunal mu def médiation a ngeen bëgg ñu tànqal naan Jamra mu ngi porte plainte Syrie nanga mel ni Sénégal ah, monde bi euh, Sénégal rek fi am loolu dans le monde entier am na mhm. yéen bu dee da ngeen toog rek lu nasaraan yi indi fii ci yu bon ngeen damm seen loos en tant que intellectuel complexe naan oui monsieur d'accord monsieur ñun ñoo lànk y a pas de oui monsieur d'accord monsieur spectacle boobu ñoom temps temps def dégg nga euh, King Fahd Palace ay brésiliennes yu futteeku ni leen seen nday jure dëppoowul ak suñu valeur xëy na ñoom Brésil bu ñu def fekk carnaval de Rio du dara foofu moom la Senghor di tuddee le choc des cultures waaye fii c'est un scandale autant France am na le code civil français renforcé par la loi Pasqua de 1993 xaraamaloon ñu polygamie maanaam nga am lu ëpp benn jabar mhm. am na ci ay moodu moodu immigré yu bari yi ci loru seen jabar bi nekk fii mënuñu ko yóbbu foofu parce que dafay daanu dans la clandestinité mhm. waaye français yi lu leen waaye wax tooñ leen parce que sont chez eux sous le magistère de François Hollande le 17 mai 2013 parce que législateurs yi dëkk boo dem chinois yeeg sénégalais yeeg burkina faso yeeg euh, allemand yi buy nas loi yi war régir la vie communautaire loi yi législateur du ko luxus dafay sukkandiku sur les réalité social et culturelles donc le 17 mai 2013 c'est ce que le législateur français a fait daal di jébbal assemblée loi euh, assemblée voté ko muy la loi buy autoriser le mariage homosexuel fii c'est un scandale mais foofu lu normal la kon foofu français lu leen waay wax tooñ leen parce qu'ils son chez waa léegi ñun amuñu droit étant chez nous ne ay brésiliens yu futteeku ni leen seen ndey jure on n'en veut pas amuñu droit boobu ci yoon voilà looloo waral maa ngi remercier ministère de la culture mm-hmm. Alioune Sow yónnee na ma ndaw ànd ak ñun ci bii position ndax li xew fële affaire culture affaire caada la léegi Euh, moom mooy superviser sur toute l'étendue du territoire lépp lu laal mbirum caada mbirum culture yónnee na ma le directeur de l'administration générale et de l'équipement ñu di ko wax euh, euh, monsieur Pala kon maa ngi lay remercier Aliou Sow mm-hmm. suñu combat ce n'est dirigé contre personne mm-hmm. waaye dañu bokk penc mi ñun ñëpp mm-hmm. te penc mi ku ne da nga ci am loo moom am lu sa moroom moom. dëgg tubaab nee na votre liberté s'arrête la où commence celle des autres. Mm-hmm. waaye nga jël la nga moom la nga bokk ak nit ñi nga ne danaa ci def lu ma neex foog coow topp mm-hmm. moo tax y' a pas de volonté d'acharnement contre Wally wala contre keneen suñuy valeur yooyu te ñu bokk ko te yéen artistes yi moomu leen ko ku jog ne yaa ngi koy jalgati ak koo mën a doon Youssou Ndour Omar Pène Baaba Maal Wally Seck Kumba Gawlo. maasaane ku mu ku mu mën a doon pour kaw si kaw wutum xaalis nga bëgg a yàq suñuy valeur coow topp la léegi nag yàlla dogal na dañu nekk dans un pays de discussion euh, très ancré dans nos valeurs religieuses te suñu borom nee na day leen di faratal shura waxtaan faratal naa shura je ne pas regretté parce que suñu résultat enquête wan nañu ne mhm. Tange Tandian moo créé affaire bi moo ko euh, Mati Jaxate mais c'est pas Wally Wally prestateur la ci. Mhm. Wally bu ñu ko attaqué jàpp ay fecckatam tëj leen kaso attaqué waat ko ci saag bi attaqué ci t-shirt ñëpp di ko gis voilà nit ki nag boo amee loo xam ne dañ ko ko accusé te defu ko. Mhm. neel defu ko loolu la l'islam wax kon moom prestataire la ci Tange Tandian ak Mati Jaxate ñoo ko organisé Tange Tandian nag yónnee na ma lettre wan naa leen ko nee naa ko man soxlawuma ngeen di ma jégglu mhm. jël leen kàddu biral ko sur le plan national ngeen jéggalu association islamique yi mhm. association la ligue des imams et des oulémas ànd sàmm jikko yi kuréelu euh, rassemblement islamique du Sénégal bari nañu mhm. ñi mer ñëpp jullit yëpp citoyen yëpp voilà ngeen jéggalu ñooñu voilà mais pas jam waaw foofu erreur dafa am ñun bi ñu jóg rek déposer plainte euh, Ahmed Cissé dañu wax ak moom ci wàllu choura mhm. mu nax ñu violé kàddoom moo tax ñu déposé plainte waaye bu sàmmoon kàddoom plainte du am alors euh, euh, Omar Diop mooy yonent bi fi feeñoon daaw moo ko ndaw si ñu wax Zeyda Zaman xam nga Omar nee na yàlla ko yónni pour mu mottali la mission du prophète moom aussi bi nga xamee ni euh, def na suura ak moom sàmm na kàddoom kenn déggatu ko 2020 ba léegi parce que dama ko ne boo ko bàyyiwul dinaa seeti Serigne Diw maanaam wasilam mu daal di bàyyi xam nga kooku neex naa waxal. Mm-hmm. li tax mu neex a waxal dafa am kilifa. Mm-hmm. Ahmed Cissé nag amul kilifa. nee na tënkuwuma ci benn këru diine tënkuwuma fenn voilà comme que amul kilifa ku amul kilifa procureur mooy doon sa kilifa. voilà kon nag loolu laa amoon lu ma leen di wax comme message. Mm-hmm. kon il ne m'appartient pas à moi de décider de pardonner ou de ne pas pardonner man duma ci tous il appartient aux responsables qui sont derrière Jamra. am na ñu ma ci jukki léegi mhm. et à la umma islamique d'une manière générale de décider mhm. voilà mu ngoog mais ci mbirum see Ahmed ba tey ñu taxaw foofu parce que euh, ñenn ci Sénégalais yi nee nañu li nga xamante ni moom la génn wax du lool lañ ko tëjee ci kaso bi maanaam dañ koy toppee mbirum góor jigéen waaw Ahmed Cissé ñetti toj-toj la def mhm. benn bi d'ailleurs yëpp jox naa ko procureur parce que xam nga déposer plainte moom yomb na ku ne yow mii mën naa bind plainte sosol la. Mhm. fekk dama la mere ci leneen. Mhm. moo tax la loi ne considère pas ça. Mhm. loi bi dafa ne plainte da nga ciy toftal loolu ustaas yi wax dalil maanaam les preuves kon yooyu jox naa ko procureur wax na baat bu ñaaw bi ma la léegi. di daganal njaaloo ak tamit euh, gay pride bi am Europe à chaque mois de juin juillet. moom euh, à sa façon dem na ci benn plateau télé ne maa ngi sargal góor jigéen yi. di sargal lesbienne Sénégal. ak gam bi voilà donc euh, yooyu ci li mu def la bokk. ci li mu def la bokk. Euh, pornographie verbale ci la bokk. Mhm. alors euh, ak tamit xotti war ma jàkk yi. Mhm. donc Ahmed Cissé dafa violé ñeenti mhm. cent trois cent dix huit. trois cent vingt quatre. trois cent dix neuf. ak la loi deux mille attentat à la pudeur la def. outrage public loi bi public la wax de waxul privé. ku tëju sa nekk entre quatre murs def bu yeboo ngay jaamu. firaw na sax yoonu kenn new ci mhm. waaye loo def ci penc mi ku nekk am nga droit yi ci yàbbi ci alors attentat à la pudeur outrage public aux bonnes mœurs mhm. ak outrage à la sacralité des lieux de culte voilà yooyu la Ahmed Cissé def kon weesu na li nga wax mhm. ci affaire góor jigéen bi loolu daf ci bokk rek waaye li mu def ëpp na loolu léegi nag nee na rëccu na yëpp ne ba procureur def li mu ne rëccu na yëpp ma ne ko ah, léegi du man nga war a jébbal sa njéggal mais au procureur. Mhm. léegi nag ay mbokkam ñëwoon nañ fi le jeudi huit. Mhm. Euh, ma waxtaan ak ñoom dans la franchise. Mhm. waaw ñoom tam ñu naan ma Ahmed tam lay jéggalu ma ne li ma tontu Ahmed laa leen di wax. bu mu ma jéggalu defuma dara ba di ma jéggalu umma islamique bi la tooñ. waaw kon ñooñu ngeen war a jéggalu. bàyyi Ahmed Cissé nag di Cheikh Tidiane Cissé kon naka lañ ko war a formuler. Mhm. ma ne vous faites un point de presse. photo ba mu daan toog. Mhm. te média yëpp xàmmee ko. Mhm. di toog di wax yu rëy yi muy wax. ngeen toog foofu ngeen biral kàddu ne yéen a ngi jéggu mouvement islamique bi. ngeen jéggulu autorité judiciaire parce que il a défié tout le monde. dafa ne jégguluwuma ñaanuma njekk. bu yaboo plainte yi nekk mille ngeen jéggulu ñëpp bu ko defee ñi war a jot jot ko. voilà kon nag noonu la demee. merci beaucoup euh, ba ba tey ñu des ci li nga xamante ni moo di xew-xew yi am ci réew mi euh, ci école yi ñu nemmeeku nii à chaque instant euh, chaque année xale yi dañuy def ay vidéo maanaam. Euh, di wane seen i cër ñu ñu ñu fekk leen ci biir classe yi ñuy sëy ci seen biir euh, loolu nag doon loo xamante ni jaaxal na Sénégalais yi trop ñu ni loolu ban taxawaay la ci jamono war a am pour dimbali ñi nga xamante ni ñoo di élèves yi waaye dimbali parent d'élèves yi nga xamante ni jamono jii nelawutuñu parce que ñu ngi may signaler démb que ni am na benn école bu nekk de la place ay bière la ñuy jaay ci biir euh, buffet yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir école yi waaw loolu chef d'établissement yi ñoo war jël seen responsabilité mm-hmm. ndax euh, état bi ñaxtu yi Jamra yëkkati woon en 2015 ci wallu loolu ñu doon taafantaloo ne jus de d'orange la mm. wala jus d'ananas mesure ya mu jëloon mm-hmm. mesure bu radicale la ndax yéen ñëpp ngi fàttaliku ne mbuus yooyu ñu doon jaay mm-hmm. tuddee ko Jakarta mm-hmm. dañu bind ne jus d'orange la am na yeneen ñu bind jus d'ananas cent francs ci buntu école yi waaye yàlla dafa def jamono dafa bari ay jàngalekat ay enseignant mhm. Adama Niang enseignant la Moustapha Sy enseignant la Imam Massamba Diop si boppam professeur de mathématiques la mhm. et cetera euh, sëñ as al professeur d'arabe euh, nest pas et de langue perse mhm. alors kon euh, ñoom ñu seetlu ne xale yi nga xam ne dañu xër ci Jakarta ni ñuy comporté woo classe dañ ciy ànd ak sax arrogance wowu bët léeg-léeg sax ñuy werante ak instituteur mhm. ñaareel ba bu récréation amee nga xam ne ñun ñi ñëpp jaar nañ ci bañ nekkee tout tànk jigéen ñi di def saut a la corde fële mhm. di góor ñi dàqante gendarme et voleur mais chaque fois bu xeex amee entre élèves saa wu ñu leen attee au moins kenn ci ñoom consommateur u Jakarta la mhm. ils deviennent violents alors bi ma ci waxtaanee ak suma doomu ndey euh, Momar Ndaw bu Asko Sen parce que ñoom ñooñu ëpp expérience ci wàllu produit de grande consommation mhm. alimentaire ñu conseillé ma de me rapprocher d'un d'une laboratoire d'analyse mhm. alors ñu daal di dem jël trois échantillons Jakarta mhm. de trois établissements différents jox ko laboratoire bi mu analyser ñett yëpp le résultat est presque dix pour cent d'alcool kon ndeke xale yi cent francs rek dañ daan jënd Jakarta di naan di mandi mandi alors ñu def point de presse euh, maa ngi gërëm ilimaanu tëngee ndax ñoom bañ ko déggee di ilimaan yu am fayda nekkuñu fi naan Jamra nee na tëngéej fa la ñuy jaayee yi mu ngi yàq suñu turu quartier yëfu ñàkk fayda yooyu ñoom defuñu ko ñoom c'est des vrais dañ ko dégg rek wooma mu di imam Abdou Aziz Ndoye imam El Hadji Aliou Dia daal ne ah yéen day sàq mi ngeen suñu lanc jaaxle woon nañu lool Jakarta bi fii la gën a naa si mhm. ma ne ko ah, mu ne ma fii la usine bi ne rek ma dóor benn déclaration benn autorité bu nekk ministère de de la du commerce dégg ma waaw ah, monsieur Guèye na nga dem a nekk sa mu ne ah dama dégg nga ne Jakarta bi eh, kenn importé wu ko ma ne ko presse bi dafa juum c'est pas importé ñu ngi naan chinois yee ko fi dugal dañ yàpp chinois yi rek du chinois ki ay sénégalais ñoo ko fiy defar fii mu ne ma foo la ma ne ko boo jógee Tëngéej boo jógee Thiès di dugg Tëngéej ci sa droite boo passé usine ciment bi am na quartier bu ñuy wax Colobane Sud 2 foofu la ne ils ont ñu gis ne li Jamra am am na. Mhm. Macky Sall jox ndigal nag nee na ñu tëj usine ba ñu tëj ko. Mhm. waa Tëngéej commencé ne dañuy jubilé ma ne attention de saay saay du bàyyi day reculer pour mieux sauter la ñu ragaloon moo am dañ si teg trois mois responsable Jamra bi nekk Thiès woo ma. Guèye ma ne ka mu ne fii day am na benn école boo xam ne ñu ngay jaay ay jus de fruits xale yi xër nañ ci lool nag te dafa xaw a mel ni daal dafa rax ma ne ko utal ma ci échantillon mu ut échantillon ma joxaat ko laboratoire ba ma leen waxoon. Mm-hmm. ñu gisaat 10 pour cent d' alcool. ma ne ko waaw bii naka lañ ko tuddee parce que bële tëngee euh, bële Jakarta la woon bii ni mu tuddee mu ne ma salañ salañ <laughs> ndeke même saay-saay bi mooy dem chaque fois di changer tur bi. Mm-hmm. ñu xeex ko ba Thiès tëj. ñu toog avant fin d'année bi donc quatre cinq mois après suñu responsable ba ne Louga woo ma Guèye ma ne kaa ah, mu ne fii de buntu école yi am na jus de fruits bu ñu fiy jaay. Mm-hmm. mais jus d'orange de d'ananas ma ne ko nu mu tudd mu ne ma namp bi ma ne ko yónnee ma ci échantillon ñu ñu ñu vérifier ko am na alcool 10 pour cent voilà foofu nag la Macky Sall jëlee au sérieux alerte Jamra yi ci la jox ndigal Aliou Sarr ministre du commerce. Mhm. mu xaatim benn arrêté ministériel date bi duñ ko fàtte mukk en date du 18 septembre 2015 portant interdiction totale sur le l'étendue du territoire national de la commercialisation dans les abor des établissements scolaires et ailleurs de Jakarta de Salañ Salañ et de Namp bi arrêté nañ ko. léegi nag da nga lu garaaw. Mhm. mooy école yi day am ay buvette ci biir. Mhm. kon nag ñu ngi profité ci seen antenne alerte président Macky Sall. nee ko la nga waxoon Aliou Sarr di du commerce def na ko Jakarta annulé nañ ko waaye dañu am beneen feem bu ñuy def dugal ay ay canette ci biir école yi mhm. voilà loolu nag chef d'établissement scolaire nañ jël sa responsabilité mais état bi Jamra jël na engagement ne début semaine bi parce que Macky Sall dafa tukki mhm. dinañ ko jébbal correspondance alerte ko comme quoi léegi am na école yoo xam ne ci biir chef d'établissement yaa ngi sàggane ba xale yi dafa jaay yooyu yooyu ñu fay jaay nag moo waral dérive yi ngay gis mm-hmm. ndax ku àndul la sa sago doo xam loo moom ak loo moomul mm-hmm. ku àndul ak sago doo mën a jaamu yàlla ko mm-hmm. àndul ak sago doo xam say devoir citoyen moo tax gis nga léegi école yi xale yi ànd seen sago ñu ngay def ay lomotif xaw ma di filmer des scènes sexuelles débauche bi takkarnaase alors loolu yëpp base bi mooy école yi dañu commencé di fa sàggane mhm. la commercialisation de ces produits yi nga xam ne day teqale xale yi ak seen savon mhm. voilà loolu tam ñu ngi ci alerte tous les préfets mhm. nañu roy sur le préfet Pape Demba Diallo dégg la Macky Sall defal na ko promotion les gouverneurs la quelque part dans le Fouladou waaye ba mu nekkee préfet fii ci Pikine Jamra daan alerter te saa ñu alerte siiwal ko yónnee ko ko jog na bett yi def benn opération coup de ci benn guddi diggante minuit ak six heures du matin tëj na vingt bars clandestins et des salles de jeu yu bon yile mhm. ay pari foot ak ñoom seen mhm. tax xale yi ànd seen sago mhm. diggante caaro yi yëmbal nord yëmbal sud jidda caaro yi kaw Médina Gounass Wakhinane Nimzatt vingt bars clandestins te moom nekku fi di xaar ay ndigal bu ko Macky Sall jox mm-hmm. déedéet dafa xam ne poste bii ñu ko jox dafa war a aar askan wi mm-hmm. mu xam ne lii di raam dana yàq njaboot gi mu jóg responsabilité mu jóg jël responsabilité am mm-hmm. kon nag yeneen préfet yi na ngeen def noonu te bañ di xaar rek naan damay xaar jot ndigal ci président de la République tegu leen fa pour ngeen di xaar dafa leen fay teg pour ngeen di anticiper voilà kon di leen remercier ci yooyu nga signalé ci école yi ndax ñun amuñu dara dul suñuy doom suñuy jarbaat ñoom ñooy avenir Sénégal ëllëg te Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ci def waxtaan bu am solo nee na jamono ngi dox jëm foo xam ne guerre yi sànnante ay bomb ak yooyu day xew yi ñu ne ko ah, lu koy remplacer mu ne technique bi léegi mooy de détruire la jeunesse parce que am réew boo détruire jeunesse ba rek réew ma dootul am avenir te mu ngi mel ni egsi nañ ci Euh, ñu gis yenn sëriñ daara yi fan yi euh, am ay influenceurs yoo xamante ni ay doomu réew mi lañ euh, génnoon di mel ni lu jéem a xeex daara waaye ñoom bi ñu jokkee ñoom nee nañ loolu dañ koy def xamuñu woon ni loolu la ci loolu lañ ci jublu mu doon ki nga xamante ni moo di si Sungom ak Duud ak beneen influenceuse mu doon loo xamante ni sëriñ daara yi ñu ngi doon wax ci réseaux sociaux yi ba tey dégguñu Jamra àddu ci. non dafa am kuréel. ñu mm-hmm. aar daara. Mm-hmm. oustaz Makhtar Sarr moo ko Jamra euh, ustaas yu Jamra yi. membre lañ ci aar daal. kon nag ñun du ñu rivaliser ak ustaas Makhtar Sarr. Mhm. waaye jokkoo nañ ci téléphone. Mhm. jokkoo nañ ci whatsapp sànnante nañ ci ay audio. Mhm. waaw ñu ngi ci ay pexe. waaw mënaguma la wax lan la. waaye balaa yàgg di ngeen ñu dégg incha allah. képp ku noonoog daara yi Jamraak aar daara bu ustaas Makhtar Sarr ànd sama jikko yi def noonu incha def nañ ñoom ñëpp def nañ ay vidéo seen compte seen seen compte TikTok yi jéggalu boo jégee nga yónnee ma yooyu comme ça ma yónnee ko euh, waa aar daara ndax aar mhm. nañ de mhm. fi mu ne ils sont sur le pied de guerre et ils ont raison mhm. euh, coow li nga xamante ni moo am Mbour euh, la personne gi nga xamante ni moom moo rey ñetti doomi aadama waa mbuur ne dañ leen war a jox kooku pour ñu faat ba kanam lan la ci Jamra wax tax sénégalais yëpp ñi ngi réclamer li nga xamante ni moo di peine de mort <laughs> Mamatar Gueye ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci liggéey o xam nga ñun depuis présidentielle yu américaine yi yu 2016. Mhm. opposant Hillary Clinton ak Donald Trump. Mhm. daf ci am benn taxaw seetlu bu ñu defoon siiwal nañ ko. Mhm. parce que booba fekk na Dakar Sénégal Dakar en particulier insécurité bi commencé woon di jéggi dayoo. lan la américains yi def dafa am ñetti état xam nga boobu état yi dañoo am autonomie. ci ni ñu war a organiser seen vie communautaire ak seeni législation mm-hmm. mu di Nebraska Oklahoma ak Californie mm-hmm. ñetti état yooyu c'était des états abolitionnistes c'est-à-dire seeni gouverneur sous la pression des, des droits de l'hommiste dañu aboliroon la peine de mort alors mais malheureusement dañ ci teg ay at yu néew trois ans quatre ans criminalité bi montée mhm. pédophilie suivie de meurtre mhm. montée en flèche. di agresser des personnes du troisième âge yu doon dem ci distributeur automatique de billets pour récupérer seen pension retraite. Mhm. agresser la rey la montée population ñetti gox yooyu nag màbb nag di exiger le retour de la peine de mort. léegi nag ñetti état yooyu lan la def dañuy saisir l'opportunité de la présidentielle opposant Hillary Clinton ak euh, Donald Trump. voilà daal di ak référendum mhm. avec une seule question êtes-vous pour ou contre le rétablissement de la peine de mort mhm. waaye Nebraska moo nekk en tête 61 pour cent de oui delloowaat nañu peine de mort mhm. Oklahoma delloowaat nañ ko Californie delloowaat nañ ko alors Sénégal nag Ablaye Wade pour des raisons humanistes avait fait voter la loi euh, euh, euh, euh, la loi 2004 38 euh, du 28 décembre 2004 mhm. di abolir la peine de mort mhm. alors euh, dañu yaakaaroon ne xëy na yëf yi tane na mhm. mais malheureusement depuis lors rey euh, dootuñu xaar sax nga génn ci mbedd mi dañ lay fekk sa biir kër rey la Fatoumata Makhtar Ndiaye en 2019 di bokkoon ci bàjjanu Jamra yi biir këram lañ ko fekk ca biir këram ñu fekk sa chambre à coucher mm-hmm. def ko lu ñaaw yal na yàlla eh, dégg nga may ay mbokkam xolu muñ mm-hmm. te itam yàlla ma dem ci kawam Binta Camara au mois de mai deux mille dix neuf mm-hmm. eh, ka ko rey du agresseur nit la koo xam ne presque ci miin na kër gi nee na da doon bëgganteeg moom waaye bëgg ko sàkku mu bañ mu def ko lu ñaaw lool. Mm-hmm. il est vrai que ndaw si ñàkk na ci bakkanam waaye xeex na jusqu'à jusqu'à son dernier souffle ba waa ji mujjul am lu mu bëgg. Mm-hmm. waaye ñàkk na ci bakkanam. alors kon rey yi léegi wute na nag bu njëkk ba jamono bi ñuy wax addu kalpe mm-hmm. addu kalpe mooy dañ lay koj. weer dee ngay ñibbi yore sa salaire ñu koc la ci boppu koñ bi jël arme ne la indi boo joxee ñu jël bàyyi la nga dem waaye léegi dañuy jël sa alal rey la. alors moo tax nag ñun on a demandé au président Macky Sall mu abroger mhm. la loi 2004 38 du 28 décembre 2004 mhm. bi nga xam ne moo moo moo moo moo suspendre moo fi jële peine peine mhm. alors euh, demandé nañ loolu waaye nag waxuñu ne na def décret imposé ko nit ñi waxuñu loolu dañu ne na ko soumettre à référendum après nit ñi wax bu fekkee nit ñi ne non garaawul bu ko fi kenn delloo xam ne nit ñi ñoo bëgg loolu waaye bu nit ñi ne non nañu delloo si peine de bëggu-bëggu nit ñi la su boobaa ñu defal nit ñi li ñu bëgg rek mhm. euh, ñu gis euh, fee ci sëgu yi nga xamante ni moo nekk si sëgu Pikine yi euh, ñu gis fa ay ñaawteef yoo xamante ni doy na waar sénégalais yëpp ngi ciy wax mu doon loo xamante ni métti na askanu Sénégal Mame Matar Gueye bi ngeen gisee yenn vidéo yi ñuy génne ay nit di dem ci armée yi di suul wala di liggéey ba ñu laajee ka nga xamante ni moom moo nekk ca buntu armée yi dañu moom du ci yey du ci yàbbi waaw loolu day defe naa ne yéen ñëpp ñiy suivre actualité yi mhm. euh, fait divers yi seetlu ngeen loolu saa wu ñu dëgmale élection mhm. wala ay échéance yu am solo mhm. disparition xale yi day day bari bari et puis les meurtres rituels surtout ci ñi nga xam ne c'est des personnes vivant avec un handicap euh, ay ay ay euh, albinos ñu leen wax puune puune day commencé di bari voilà léegi nag li li li feeñ ci armeelu Pikine yi mhm. eh, mooy li feeñ rek mhm. waaye fi mu ne armeel boo dem mari <laughs> day taal yi yëpp yaa ngay takkar naa eh, di bàkkoo naan quatre-vingt-quinze pour mais ñiy def yooyu mhm. c'est les xërëm yu bon yooyu ñuy dugal ci armeel yi liggéeyal ma diw yàqal ma ko tasal ma séyam fexeel ba mu jubóo di ko avec son patron qu'il perde son emploi ah adduna bi dafa gaaw a jeex de te su boobaa li nar a xew mooy lii Sanoxo wax rek Sanoxo c'est le défunt euh, animateur euh, bi nga xam ne moo jiitu ñoom Kouthia ci euh, nu mu tuddati waaw moo leen ci jiitu mm-hmm. moom dafa ne bu yowmal xiyaamee suñu borom toogee sur son trône central malaaka yi wër ko mm-hmm. yonent yi wër ko mm-hmm. jinne yi wër ko alors ñu xàll yoon ñu war di commencer di déglu peuple yi woo pakistanais yi indonésiens yi maliens yi di woo français yi mu ne bu ñu ne boo am na délégation buy ñëw nga dégg coow lu bari bari mu ne booy boo xam ne délégation senegal la mhm. werente bu bari bari ki naan déedéet waxewu ma ko noonu de nii laa ko waxee mu ne sénégalais yaa ngoog sénégalais yaa ngoog alors loolu nag mhm. nañ ci sóoraale mhm. ndax euh, adduna bi day jeex day jeex te su boobaa dañu delluwaat toog suñu kanamu borom loolu lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la voilà mhm. defe naa kon def nañ tour d'horizon def nañ tour d'horizon waaye dafa am benn question boo xamante ni sama benn naataango bu ma ko envoyé léegi mhm. euh, mu ni 1xBet euh, yi sunu porteur de voix yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ñoom ñooy maanaam euh, gën a jox visibilité ay paris foot ak yooyu noonu ñu ni nag waa Jamra boobu ba léegi déggaguñ ñu àddu ci te doon na loo xamante ni xale yi dañuy copier ci ñoom te li ñuy copier rek dañuy jàpp ni lu baax la waaw xam nga li ma li ma dal léegi ci affaire coow Ahmed naan waaw Jamra eh, waxul ak moom. Mhm. dafa yore porter moo mhm. ñu dal ci lii. Mhm. lii lan la Jamra dénonce. Jamra le harcèlement le harcèlement de la LONASE qui cible les jeunes. jusque dans les réseaux sociaux. ñu ñoo ko fi jëkk wax. parce que LONASE dafa créer lu ñu wax le PMU en ligne. et c'est scandaleux. c'est-à-dire yow da yar sa doom. ne ko wuure baaxul nangam nangam ba sensibiliser ko. ñu jaar ci suuf dem di ko taakale. dans internet. yow yedd gi nga ko yedd yëpp daal di tombe à l'eau loolu la LONASE di def et nous le condamnons ñuy wax naan dégguñu ci jamono ngir yàlla da leen di suivre actualité avant de vous précipiter pour commenter et critiquer day leen di topp li Jamra di def mhm. boo leen ko mënul topp nag ngeen maanu te noppi mhm. alors kon nag euh, Wure suñu borom moo ko xaraamal boppam te defe naa mu ngi ci suratul Baqara wala boog Ali Imran nee na innamal amru wal maysir nee na wuure ak sàngara laa yemale ci degré mbon mhm. ak bàkkaar parce que ñaar yëpp daf lay éloigner de Dieu effectivement ki mànd àndul ak sagom mhm. kii wuure tamit àndul ak sagom ndax mën na toog sëgg ci wuure bi tisbaar fekk ko fi julliwul mhm. tàkkusaan julliwul timis julliwul géej julliwul suñu borom ko xaramal ak ku ko mënti organiser nag muy wuure ak ay dee muy wuure ak ay carte wuure xeetu wure bu mu mën a loon même wure bu état organisé comme Paris Foot ak XBet célébrité yu mel ni Pape Diouf nag ma bëgg leen dénk lii am tur neex na baax na waaye responsabilité la de mën nga ci jële yiw bu bari mën nga ci jële itam bàkkaar yu rëy rëy rëy dama ciy jox exemple et je le salue au passage c'est un des doyens de de votre secteur médiatique mm-hmm. muy Khalil Gueye mm-hmm. nekkoon na fi RTS mm-hmm. daan animé mook Ambroise Gomis émission populaire benn bi defe naa ñu ngi ko tuddee boulevard defe naa boulevard la boulevard la ñun ñu nekkoon euh, ay jeunes lycéens yàkkamti bu jeudi jotee parce que benn télé rek fi amoon Khalil moo ko doon animé am mbooloo am notoriété ci jeunes yi Mm-hmm. léegi lan la benn marque de grande cigarette def du ma tudda marque bi pour bañ ko defal publicité dafa ñëw gis xalil ne ko waaw dégg nañu nekk pendant l'été euh, da ngay def euh, promotion euh, da ngay externaliser say émission mm-hmm. di ko def en plein air voilà ñun dañ ci bëgg profiter waxtaan ak yow ba juboo si benn marketing publicitaire pour mm-hmm. suñu marque cigarette léegi li ñu lay demandé daal mooy fond de scène bi da nga ñuy may ñu def suñu ngandam banderole di vanter les mérites de votre cigarette dinañ la jox tamit benn BMW dernier modèle et la seule contrainte mooy sur le flanc droit ak flanc gauche dañ ciy def benn benn benn benn bandeau dañ ciy def benn bandeau publicitaire di vanter les mérites de notre cigarette mm-hmm. campagne publicitaire bi nag bu jeexee dinañ la jox tant de millions oto bi tam nga jël moom ko bu la neexee nga xoos ko pentiraat ko mu nekk soo oto donc une offre alléchante mm-hmm. lan la leen euh, Khalil Gueye tontu ne leen waaw xaalis de kenn bañu ko waaye yàlla dafa dogal ak notoriété bi ma am mm-hmm. euh, jeunes yi topp ci man di ma imiter dans mais moindres faits et gest ba léeg-léeg man Khalil ma daje dans la circulation ay pères de famille ñu naan yow Khalil sama doom day léegi ni ngay defaree sa karaw gi def ci bermak bergamote xàjji ko ci digg bi mhm. sama doom noonu lay def kii naan ko sama doom léegi dafa ma exiger ouverture de classe ma jëndal ko ay demi botte en cuir mhm. mu ne ma kon responsabilité bu day noonu ñu xëy ma externaliser sama émission mhm. di def la promotion d'une marque de cigarette mu am nag des centaines de milliers de jeunes yoo xam ne dañuy naan ci seen xelu xale bu gàtt comme que xale la ngi def promotion cigarette sangam kon cigarette sangam aayul xaaral ñuy jëfandikoo ko xalel nee na responsabilité morale boobu du ko gàddu kon dizaine de million yi ngeen ma proposé je vous remercie waaye jël leen seen xaalis et tout le monde sait qu'il a un mauvais salaire salaire u baaxul woon à l'époque waaye daf leen gàntal loolu mooy responsabilité porteur de voix kon Khalil gàntal na marque de cigarette boobu des dizaines de million parce que bëggul sànq ay doomu jàmbur léegi wuure yi PMI XBET ñu ngi détruire ay carrière scolaire am na xale yoo xam ne léegi dañ leen di jox seen paiement école ñu jàdd dem jouer ko perte mm-hmm. dootu ñu mën a dem école parce que ñu mm-hmm. bu ñu wàccee du ñu mën a ñibbi seen kër parce que seen papa daf leen di exercer mm-hmm. am na ci enquête bu jam la def ay xale yu nekk dans cette situation là dañu mujj dem ci tefesu yaraax ànd ak buujumaan yi di quinze ak di tux yamba mhm. nekk des agresseurs à cause de de waaw et de et de baaxul kon nag Pape Diouf xaw ma ban xeetu contrat nga am ak ñoom waaye bàyyi ko ndax ñu ngi lay def loo yoo xam ne yaa ngi sànq ay doomu jàmbur te mm. ñun Jamra amoon nañu estime ci yow mm. mais du du Papa Diouf kese ah, parce que gis nañ ci yenn affiche yi sànq bi ñu ñëw hmm. euh, ku ci mel ni Siteu moom mi nga xamante ni macha allah xale yi dañ koy suivre hmm. ak Bombardier gis nañ leen ci ay panneaux publicitaires yoo xamante ni ñoom ñëpp lañu waxal Jamra ñoom ñëpp laa waxal parce que yii yaama la yaama leen signalé waaye Pape Diouf laa gis hmm. kii bi waaye ku ko mënti def ngay mbër ngay way kat ngay kat ameel nga njaboot gi àq ndax xbet ak pari foot ñu ngi détruire de carrières scolaires des enfants ñu ngi tas ay sëy ñu ngi yokk insécurité ci dëkk bi waaye yéen ngeen ci am xaalis def seen poche xaalis boobu li ci topp ci àq ki deret kenn xamul nu mu toll lu ko jar bàyyi leen ko voilà kon nag euh, xaw naa guddi. Mhm. dama dañu am rendez-vous ak suñu avocat. Mhm. Mhm. Euh, ndax euh, suñu borom la mu wax ci téeram bu tedd bi lu leer la. moo di yéen jaam yi am ngeen responsabilité yu rëy. dégg nga si seen diggante ak seeni yeneen yeneen mbokk jullit wala bokk seen i compatriotes tout mm-hmm. simplement mooy ku si yàlla dénk lu day ni tarfatal ay ni ci ndombal tànk keroog la sa responsabilité gën a yokk mm-hmm. parce que nee nañu yéen ñëpp yàlla dafa leen considéré comme ay sàmm mm-hmm. te suñu borom nee na bu yowmal xiyaamee ku ci nekk danaa la laaj la ma la dénkoon pour nga sàmm ko noo ko sàmmee père de famille bi sàmm la préfet bi sàmm la mbëru làmb bi sàmm la waykat bi def publicité xbet di sànq ay doomu jàmbur sàmm la bu ëllëgee suñu borom dana la régler ne la ñaata doomu jàmbur nga sànq pour sa poche lu ko fi jar bàyyi ko Pape Diouf yàlla dogal na am nga talent chanteur euh, yàlla dogal na say say say chanson yiw na kenn mësula gis ngay futteeku sur scène di def des actes de de de de perversion bul ko yàq publicité bii ngay defal carte katu xaalis yooyu jaru ko bàyyi ko maa ngi koy wax tam mbër yi dégg naa yéen am na ci ñoo xam ne yéen a ngi koy def bàyyi leen ko jaru ko suñu borom moo xaraamal loolu moo xaraamal xbet xaraamal loterie nationale xaraamal pari foot dafa ne innamal xamru wal maysir maa ngi leen yemale ci même décret bàkkaar ak sangara bàyyi leen ko wala kon nag euh, yàlla nañu yàlla sàmmal réew mi yàlla nañu yàlla aaral njaboot gi yal na yàlla dàqal senegal seytaane yal na yàlla sàmmal ñu suñuy ay kilifa diine kilifa diine yëpp nag laa wax mhm. bu ma kenn ne yaa ngay far tuuti wala fee <laughs> euh, kilifa diine yëpp ahlul sunna mhm. ahlul tasawuf ak ahlul mhm. yàlla ñoddi seeni fan te toftal ci wér yal yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul wa salaamu aleykum wa rahmatullah